وانا جينا من سري هذا الزمن وزر خيرك وكل بتميم والتقنا سر النصارى واليهود وزر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم laa xawla wala xuwata illa billahi al azim jërëjëf sëriñ Tuuba jërëjëf sëriñ توبا fas yéene cee jariñu ci baatu barkeb laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi ginnaaw loolu ñu ngi sant sëriñ Muntaxa ñu ngi koy siyaar di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi kàttanal ko ba naal li mu naal liggéeyal ko maam ji Seex Ahmadu Bamba yàlla na ci gis lu kawe njortam noonu tamit lañ ciy ñaanale sëriñ Amdi Moodu mbend xalifa Baay Faal di ko siyaar baax sunu borom guddal fanam noonu tamit lañ ci ñaanale a ah, xalifa sëriñ Mbay si Mansour si yi nga xamante ni mooy xalifa Tiwaawoon tey jii nag Thiès Events dafa ñëw seet si gan gu tedd gan gu màgg muy émission gan gi muy sëriñ lamin Niang di ku baax di ku yàlla baaxal di ko mën a jàng macha allah émission ya, ya, ya, gan gi nak nek fi mom luddul feñal wax deug yalla jambar yi nga xamanteni ni ay taggukat yonent bi lañu ñu nek ci biir dekk bi ak ci biir rew mi nga xamanteni bari na ci ño xamanteni dañu mëna jang lool waye ñu bari rañé wuñ leen émission bi nak di émission gan gi bëgg feñal feeñal ñooñu nga xamanteni tay ji ñi ngi ci biir rew mi di ay taggukat Seydina muhammad kii nag nga xamante ni mooy sëñ Lamine Niang di jàmbaar lool bokk ci waa kër maam El Hadj Malick tey jii émission gan gi moom la seet si sëriñ lamit ñu ngi lay siyaar bu baax di la ñaanal te di la nuyu a ah, di la laaj naka yaram bi macha allah di wax ni ñu ngi lay jox kàddu gi nga nuyoo. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وسفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله نوي نوي نيب دي زيار نيب دي نيان يالا ميام جامك سلامك سورة يالا يالا دفل نكو أدنا الآخرة دي جيتال نوي بسنو نيار ويجور نيان يالا يالا بايلي في بجاكنام bañ leen di weer ak a weri ci barke yonent bi a ah, nuyu waa kër Seydi Hadji Malick ñëpp nuyu xalifa bi sëñ Mbaye Sy Mansour ñaanal ko yàlla yal na yàlla yàggal ko ci kanamu taalibe yi yàggal ko ci kanamu njaboot gi bi jaay mu safal Karim ah di la sant bu baax di la gërëm ndax li nga defit rafet na lool a ah, di wër mbokk taalibe yi. ah ngir ñu joxe seen pas-pas ci Thiès TV lool yombul Thiès FM waaw kon ñu sant la ci ba baax la ci ah di nuyu wa kër gi di nuyu samay rak samay soxna di len ziar bu baax baax ñoom it ndax jàppale nañu ci biir jàppale nañu ci biti kon dañuy yem fofu rek ba ci kanam inshallah allah. ah jërëjëf seigne Lamine ndeysaan kaddu yi ku ko dégg sa xel dina dal bu baaxa baax ndax señ Lamine mom nek na ko xamanteni jambar la ci njang mi waye top njang mi rek dafa yor metiem yalla dogal mu nek ci di góorgóorlu ba lu ko ca fek rek mu ngoy sante yalla bu baakha a baax ta baax ni ah ñu ngoy eh, bëgg ci ñi nga xamanteni ñu ngi doon ay kat di tàggat Seydina muhammad manam naam nga nek ci sax am ci ay xewal baax na tamit ndimbal na ca fekk loxol boroom loolu moom dañ la ci naw nag bu baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla buñ la fekkee fa nga yëngoo wax dëgg yàlla nañu xam ne yow mii jàmbaar nga waaye am na leneen loo làmboo muy mën a tagg Seydina Muhammad waaye nag xam naa ne dañ lay jox kàddu gi rek nga am foo ñu dugal rek ci yonente bi ñu xool noonu muy demee xam naa nag soppe moom soppee Lamine moom ñi ñu ngi jàkkaarloog Lamine bu baax xam naa ne tey jii dañ kontaan dinañ bëgg incha allah nekk wuñ fi nag lu dul loolu incha allah wan leen maanaam ni ñuy yëngoo maanaam mu taw feexe lool ndax a ah, lamin wax dëgg yàlla am na ñu koy xaar ñoo xamante ni bëgg nañ koo dégg bu baax a baax a baax incha allah bisimilah si Lamine. yoneen gisul baayam ba tey yaayam ja yàggul lool mu wéy baayu faatu bintu gisul baayam ba tey yaayam ja yàggul lool mu wéy yeneen ñaari weer la am ci biiru yaayam yàlla faat baayam xattaabi abwa abdullahi xiina mada sëhraani lil xamli za azharul kalimi ne ndeysaan yeneen am juróom benn ne Amina jàpp ci loxoom ne ko mosoo gis sa baay waaye kaañu dem ma yóbbu la nga ziyaare ji sa mbokki baay kaana turiidu ilal axwaali zairatan wa fil iyaabi qadaatin min alxakami ne ndeysaan yàlla yebal malakal mawti ne ko Amina ngi noon di dem waaye bu tolloo abwaa fi ñu suul Abdullahi na ko faat mook Abdullahi ñu bokk benn bàmmeel bu leen suul waama arbaatin aw sittatin galakat umun nabi bi ab waa in awi zuumi ne Ousmane bun Affan daa wax lu am solo Ousmane ne bu ñu tuddee aljana ne Ousmane day jooy ba sikkim bi tooy xepp ñu ne ko Ousmane lan moo tax mu ne dama xamante ni aljana du fa wéet waaye bu ñu tuddee sawara ne Ousmane day rey ba kekku ñu ne ko Ousmane lan moo tax mu ne dama xamante ni sawara du ma fa wéet waaye bu ñu tuddee biir bàmmeel ne Ousmane day jooy ba sikkim bi tooy xepp ñu ne ko Ousmane lan moo tax mooy dama xamante ni biir bàmmeel man rekk maa fay nekk te sama jëf rekk moo fay fekk moom la maam Serigne Touba wax wakun nasiri anisi xiina ma dafanu jismi fa sirtu waxidan sama yàllaaw ñu ne Seydi Xaaji Malik mu ne saa boo xëyee war ngaa limaale sa bopp ci ñuy faatu tey waxutta min al amwaati nafsaka naabisan waraaka duniyan lil ilaahi tunibu ñu ne Maodo bëkk rek dara maan aram loo maam kumba caam góor ga demoon gaaye jër faraaye ñëw tiwaawoon sampi daara mu ne man de yéemu naa ci ki nga xam ni nee naa bëgg aljana te foo ko fekk mi ngi foofu ak ki nga xam ne daa bëgg sa day daw sawara te foo ko fekk mi ngi nelaw man Seydi Xaaji Malik yéemu naa ci ñi ñaar فيا عجبا من يرب النار نائما ومن يطلب الجنات فهو لعيب من سيد الحاج مالك mu ne ñu jël bi jox ko maamam booba mi ngi am juróom-ñetti at ama samaani wa faatul jaddi zaganamin wa xaatimin wa anu sarwa nazil karami yàlla yebal malakal mawti ne ko faatal maam ji ne ndeysaan mu di bàyyi tëxam abaa mu di ko dëgërloo ne ndeysaan bi ñu koy jox abaa taalib nag booba yonent bi am na 40 ans xoolal sunu maam Seydi Xaaji Maalik ne 40 ans boo ca tollee di ndaw loo am dootoo ko ñàkk waaye boo amagul 40 ans loo am mën nga koo ñàkk ñu ne Seydi Xaaji Maalik mu ne yat sax boo ko dee téye il faut nga am 40 ans xamlul ada lil anbiyaa imaan كن حاملا يمنا ميمي تاقا ميساني يوني سيد حاجي مالك من ينتي بي دسي سخنام خديجة ديكو دقر لو يالا يبال ملك الموتي نكو بسو أبا طالب بوي مين يتفن فاتل سخنام خديجة وعن ثلاثة أيام من خديجة قر توت وذلك عام الحزن والغمم وعن ينبو دفن ينمغل سيدنا محمد رسول الله ne ndeysaan malaaka ya def délégation ñëw ci yàlla naan yàlla li nga teg sunu waa ji dafa metti waay yàlla naan leen xanaa du maa ko bind du ko moom wa xaala la nii la sakka xaafisu wa rabbuhoo awnuhoo kaafi imami ñu ne Seydi Xaaji Malik gaa ya taxaw naan yonent bi jirim la Seydi Haaji Maalik ne leen jirim nekkul ñàkk yaay wala ñàkk baay rek mooy jirim ñu ne Seydi Haaji Maalik mu ne luy jirim mu ne jirim mooy ki nga xam ni amul yar te amul xam-xam laysal yatiimu xadmaata waalidu woo innal yatiima yatiimul ilmi wal adabi ñu ne Seydi Haaji Maalik من والناس نفتخر بالمال والادب ونحن نفتخر بالعلم والادب دفلني نيو ماغل سيدنا محمد رسول الله ني ندايسان ني تك يونتي بي نياتي فان كن رسولكو ني جاخلي غنو امون موي بي في يونتي بي جوغي انا كاناي توك كي خلافه غي موتاخ ني تك يونتي بي نياتي فان كن رسولكو من دوساتين اخرو دفن النبي والاستغاله من يولى كالأمريم ne ndeysaan Omar bun Xataab moo ñëw ne yonent bi nee na woon bu fi jógee murru Aba Bakrin fal yu salli binnaasi yonent bi nee na woon su ma fi jógee jiital leen Ababakar mu jiite nit ñi man di Seydunaa Omar ki yonent bi woolu ba doxale ko sunu diggante ak sunu borom man di Ababakar maa ngi jaayanteeg moom wa وبعد ما بايعوا صديق قد عزموا على جهاد الرسول مقتدي الرحم nee ñu teg yonent bi nag war koo sang waaye xam nga ni ku ne yaay sang yonent bi xam nga ni ngan di piir nga ne ndeysaan yonent bi nee na woon xam-xam bu dee néeg man maay néeg bi waaye aliyun mooy bunt bi ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha waaye xam ngeen ne aliyun moo ko sang wa xaydarun xaslawo waaliyu xallibuhul abbaasu wabnaawu faatlu thani bil xusumi ñu ne Maodo ba krek daramaan aram loo maam kumba caam góor ga demoon gaaya jël faraaya ñëw tuyaawoon sampi daara ñu ne ba nu sangee yonent bi ba pare mbalaan ma nu ko sàngee fa lañ ko jëndee Seydi Haaji Maalik ne mbalaan ma sax xam naa fa nu ko jëndee man ña ngi ko jëndee yaman وكفنوا ببيت خل وفي العمامة والتغميز والغمم والتغميز في الغمم يونس بابارنك نك نين ديسان انا كان جولي يونت بي من بوبو جولي ني واتغول صلوا على البدر ابزازم بلا اممي جولي نانو يونن ابزازم بلا ام بلا اممي ني خولال يونت بي ميغي فاتو ci kawlal bi ñu puslal bi denc ko ci bammel ne ki bi sax man Maodo xam naa ko ñu ne ko kan la mu ne law sariiru xad ida asaadu bnu zuraaratin yanaamu alayhi alqalbu lam yanami ñu ne Seydi Xaaji Malik mu ne fa bàyyi lal ba ku dee ñu teg la ca ngir nga barkeelu ca tabarrukan daawalam fii may ti xam lii mi ñu ne Seydi Xaaji Malik bi ñu sàngee yonent bi def ko ci bàmmeel ana kën mujj ci bàmmeelu yonent bi mu ne Bilaal ibnu Rabaax moo mujj ci bàmmeelu yonent bi وابن الحمامة رأس القبر يبدأ من وجاءة الرأس ثم القلب ذو الدرم وأنا نيب دفن ماغل سيدنا محمد رسول الله nañ bàyyi xel dee ndax dunyaa bi daa mën a wor te ngoy ci sunnas rasulallaahi moo mata am nañ bàyyi mees bàyyi xeesal bàyyi lépp lu bon te mooy ci sunnas rasuulallahi moo mata am nañ bàyyi xel dee ndax duniyaa bi daa a wor te mooy ci sunnas rasuulallahi moo mata am malaaka may fekki kë yaakaar ca kër ga mu ne muraad ci ruuxam nga ngir yàlla ko jox ndigalam ñu jig di booloo di jooyoo fàtte yàlla ma xëy bindoon ko ngir muy dundal sunnas rasul manu xam nan delluwaat di xalaat bis bay borom ba di jël ci doomu aadama ruuxam nga nga xëy neneram yokkal xalaat yi bu baax tey bàyyi xel ki la fal te xam ne moom rekk moom ngay xëy di woo ci turam bur yàlla teg la fee baram ñu daw la ngir bañ mu wàll kenn tax ñu ber la loo def mu jëm ci saw yaram dimbal la lu dul ko baax ay toog sawet defar la nga faatu gaña indi sen ndimbal ya ku nek jël kaddu di wax melom ya ni di xëccu jaxal ya fàtte doom yaay ni di xëccu këram ya ak ya jabar ya mbolo ma ñew gaddu ñu jëm armel ya mbolo ma suuf sa sanni pel ya kon gaañi wiiri wiiri jaari ndaarey soppe yoneen bi nan di bàyyi xel ci ndaari kon gaañi wiiri wiiri jaari ndaarey soppe yoneen bi nan bàyyi xel ci ndaari ngay def lu baax ñu naan la waayu yàlla moo ma gënal ñu teg la fay palaasu yàlla ngay def lu baax ñu naan la waayu yàllaay moo ma gënal ñu teg la fay palaasu yàlla xolal ma firaw na ma ni woon ma yàllaay moom de alkonde ko dal ci géeju yàlla bis bu nekk ñoo ngi tooñu zul jalaa bur yàlla xam ne dunu far ñu bañ a daari bis bu nekk ñoo ngi tooñu zul jalaali bur yàlla xam ne dunu raw mu bañ faale maniinun yow zu ismin maniinun منون غير ذي عجب منون ومفتاح ومصباح منير جواد مصطفى عين العيون مناجا مرتدا قد بسير وليس على المغيب بالزنين وعين الخلق عينا خنكانا يباكت من أتاه من العيون عين أونيلنا ليس عين يمثله به نيل العيون وإزلال بعين في كثير فإرغاز له كل العيون فيا عجبا لذي النور المنير ونور الأذل في ماء وتين وفي سلب لإلياس يلابي ويسمع المواسم بالأزين سبائكه الجواهر مزريات والإملاء وهو عين للعيون لو قبل الولادة معجزات تاجا أمه دون الزنون نقي نعم. في ولادتي عجاب يعي كل ذي عقل البنين ومكحولا ومسرورا نزيفا أتى يوم الولادة في عيوني يسبح ربه تسبيح عبد برور ذي كسار مستكين وبيت الله في ازترار فيا لله من سم مكين سرور في سرور في سرور وعيد دون أعياد العيون سرور في سرور في سرور وعيد دون أعياد العيون منين يوم ذو اسم منين منون غير ذي عجب منون وعام ثم سار ثم يوم أتى فيه الهدى قرن الخرون سرور في سرور في سرور

ndax gën gi mbindeef nga xamante ni moo tax ñu bind lépp lu baax nga dugg foofu sànq maanaam di wax di wax ba namu làqoo àddina ah loolu doy na waar waaye nag xam naa ni njàng mi du ñàkk dañ ci jël ay pàcc pàcc rek ndax bëgg naa soppe yi xam lamin mooy kan ndaw war nañoo waxtaan ma laaj la nga tontu ma soppe yi tamit xame ci ci njariñ ndax yaangi sa place di liggey waye birna na ma ni amna soppe yo xamanteni ñu ngi lay deglu sa su nek buñu ñu nga yor micro di yëngu di tag yonent bi ndax sha allah ni ko waxee léegi da man tayit manam yaqlu la dara ta xamna ni fepp ko xamanteni kuy tag yonent bi taxaw na yor micro bu la nexe man nga taxaw ci wet gi te lo wax man nga ci baña delu wat lolou mom leer na man ndax dama la xam bu yag fekke sam jang ah ñu ngi siar bax seigne salou Touré mi nga xamanteni mo moo nekk Thiès ak mbollem kilifa diine yépp nak comme niñ ko waxé rek Thiès Events ah day dugg ci këru diine yépp amul mourid amul khadir amul layen amul tiyan ñepp rek la yamalé ndax kañu and liggéeyal yàlla ah yaaka naani ñom ñepp kenn ku ci nekk lool la lay wax ndax ño bokku ben yonent bi te ñoo bokk benn yàlla bi te sëriñ tubaak ak moom El Hadj Malick ñoom ñaar ñaari jëmm kenn lañu waaye nag dafa am ñoo xamante ni dañuy rubee ñooñ dañoo xamut waaye war nañoo xam waaye ñooñu de fa ñu bokkee du fii loolu nag ñu bari war nañoo ràññee loolu waaye Lamine moom dama lay laaj loolu yow ah nan nga ciy def soññ ci mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoom ñu ngi rubee di dugg fii ak wax loo xamante ni dara leeru leen ci diggante sëñ Tuubaa ak maam waaw jërëjëf imam ah fi may njëkk a tontu rek mooy wàllu cadre liggéey bi nga wax. ndax Seydi Hadj Malick dana laa tax falu ay wal ixwaano an xirafin junniy métier dafa doy ci bàyyi sunoog dono ya ah, maanaam liggéey moom mooy première ci gor xaw ma nag boo nekkul gor. waaw sax benn waaye bu xoromu danaan ma man lu ma liggéey doyul wallaahi lii la may wax lu ma liggéey doyul ndax dañ ma yaakaar kon nag tag yonent bi moom euh, dafa wàllu si rek dëgg la fa madxul Mustafa fawzun wa gunmun fa ma xarajun alayya min alxaniini ne tagg yonent bi koom a ngi ci xéewal a ngi ci lépp a ngi ci lu yaakaar ci àdduna rek mi ngi ci waaw waaye nag euh, li ci am solo mooy da wut loo jàpp ba pare boo defee nga boole koog moom gis nga boo amee liggéey boo demee ci bërëb tag yonent bi danga koy tagg ngir jëmmam mais doo ko tagg ngir weccit wa waaw da nga koy tagg ngir jëmmam mais doo ko tagg ngir weccit wa maanaam foofu sax laay waxee foofu looloo tax sax may wax ndax maanaam bu fekkee da ngay tagg yonent bi ah ngir ngir ngir ngir ngir jëmmam jooju rek mm-hmm. maanaam yaakaar naa la nga xamante ni moom mooy génn ci nit ñi loolu du la soxal yow yow yow jëmmi yonent bi moom moo tax ngay yëngu. sallallahu alayhi wa sallam ah. waaw loolu dafa am solo mm-hmm. euh, dañuy liggéey mm-hmm. jaamu yàlla. ndax boo liggéey doo mën a jaamu yàlla ndax boo liggéey doo mën a am looy dundee bay jaamu yàlla kon gor su ne daa war a liggéey ba pare ah li ci des nag muy euh, tagg yonent bi nga dem def ko ca na mu waree ànd ci xel mu dal doo ci sonal sa bopp doo ci sonal kenn. waaw. Hmm. Euh, bi ci des it euh, loo wax sa wàllu. mooy ñi nga xamante ne dañuy ruubee rek. waaw waaw waaw ma ngoog ma ngoog ma ngoog. dama dégg sama benn waay Ousseynou Diop. day wax lu am solo. danaan as ngàddu goro tiijaan mm-hmm. as ngàddu goro murit mm-hmm. as ngàddu goro xaadir mm-hmm. as du goro waaye goro gu mat uh-huh. ne du yàq uh-huh. loolu laa ci am loo xam ne ni mën naa ko jël synthèse waaw masha allah ah sëñ Lamine kàddu am na solo ndax yu mel nii dañ koy soxla ci maanaam ñi nga xamante ni tamit ñu ngi dem ci yenn bërëb yi ndax ñooy gis lu nekk ñooy fekk lu nekk tey maanaam wax dëgg yàlla ah ñoom war nañ ko mën a euh, dégg ci ñoom ñu koy gën di ñax mbooloo mi nga xamante ni ñu ngi leen di bége di leen sagoo a ah, waaye dañuy dikkaat rek Lamine di la laaj yow njàng mi maanaam dafa am koy roy wala da ngay maanaam dem ba ci biir rek nga sunu borom baaxee la ko nga ci yëngu yàlla tax. waaw loolu boo ma ci laajee naa ci sawar a ndax ndem si yàlla sa xaas Mansour Sarr mm. su ma bëggee tarixa kër Seydi Hadji Malick moo tax ma bëgg ko ya may nekk tout tànk mm-hmm. moom ma njëkk dugal ci daayira moom Hadji Mansour saar mm-hmm. jox ma kay naan ma bindal mm-hmm. may bind la fay ñëw su paree verse ko ko di dem di dem ba mujj gi ah may roy xaas duur kenn mbay waaye dañ ne nit booy booy nekk ci mbir amoo foo taamoo foo wéeru rek mm. da nga yomb ba max gaa demee ba caag man a man day maa ngi way mais aw ma fu ma wéeru ma koy wax sama xel <laughs> mais mujj gi mu mel ni daa dañoo womat xas nguur ak kay rek mais dama ko soppante yàlla tax ndax nguur dama ko mën sopp yàlla xam na ko mm, mm. gannaaw yàlla su ma demee ba toll fii tey mën naa ne jàpp na ci bu baax a baax waaw muy nguur ak kay muy ko baax muy ko yaatu ku woyof ah jël ma taf ma ci boppam may ànd ak moom ah ba jonni yàlla tey jii hmm. waaye nag gannaaw Sooro Sarr bi fi jugee hmm. ah, Pa Adama Diop bi eh, dëkk fii ci ginnaaw hmm. ah, daayiraam ci laa bokk neja moom it mu ñuy teete di ñu womat ndeysaan bëgguñu lool jàppale ñu lool képp ku nekk kees fii rek Ba Adama jàppale na la ci tagg Seydina Muhammad ci tagg yonent bi muy ku baax muy ku gore mais ku bëgg kër tarixa Seydi Hadji Malick waaw ci noonu daal lañu demee di demet demet ba tey jii ba nii tarkala macha allah mi ngi noonu ndax tag yonent bi moom bëgg ko ah, dafa daa doon lu war ñàkk koo bëgg nag moom heure la waaw mm-hmm. ah, ndax yonent bi moom mooy lépp mm-hmm. mooy lépp macha allah mi ngi noonu Ah, jërëjëf sëñ Lamine kàddu yi am na solo lool ndeysaan maa ngi nuyu ah, sëñ nguuda sëñ nguuda wax dëgg yàlla waa sëñ Ngouda Kayre maa ngi ko gis eh, démb rek maa ngi ko fekk félicité Lamine ñuy waxtaan ba ma koy wax ni woo Lamine laa invité Chess Evans ba mu naan moom ku na ku mën a jàng macha allah waaw xam ni moom bu ñu fi fii moom it du ñàkk moom dinañ déggante ak moom moom muy ku baax ko xamante ni ku ku ku ñàkk ki ñaan nag waaw di siyaar bu baax tamit sunu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi féetee kër maam El Hadj Malick ku mel ni Pate Guèye mm-hmm. ah, nekk ba Sété Senghor ak El Hadj Abdou nga xamante ni mooy rakkam ah, di leen si ñaanal sunu borom kattanal leen baax a baax ak sama maam mii nga xamante ni Jabel Guèye mam la ci man moom it ah, di ku baax moom it ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam wéral li cëram ah dañu lay bàyyi nga dikkaat tuuti rek ci kii bi ñu dellu continué waat laaj yi incha allah. fa ajaban man de yéemu naa li sayxi ci sama sëriñ bi man alaaji Mansour laqat ca dëgg-dëgg zalu xadre paare na salaatul jaamiina julli mbooloo ma walaw laawu budul woon sëriñ Babacar la afsadu kon mu yàqu asalaatu julli ga bi taxliitin ci njuumte yow mu matale na alxaadiriina ña teewoon ca jataay ba ne naar ba ñëw tiwaawoon fekk imam atuman njaay di xutba ne ndeysaan imam atuman njaay jox ko naar bay xutba ne ñu jekki-jekki sëriñ Babacar dégg naar bay xutba na ndeysaan sëriñ Babacar ñetti ñetti escalier yi ñëw ni sëriñ Atumaan Njaay xutba waatal ñu le xaamal la nga jiite ndax naar bi musaafir la te musaafir jiite jumaay wàcc na ko ne ndeysaan alaaji Mansuur sos xalimaam ne fa waajaban man de yéemu naa li say xii ci sama sëriñ bi laqat ca dëgg-dëgg zalu xadre paare na salaatul jaamiina jullit mbooloo ma walaw laawu bu dul woon ak la ab sa duwaa kon mu yàqu asalaatu julli ga bi taxliitin ci njuumte yow mu dematele na alxaadiriina ña teewoon ca ba waxaama mu taxaw moom sëriñ Babacar bi azmi ci dogoom wa zawaabi xukumin ak atteem kawalidi mel ni way juram wa fa ahsana ga mu rafetal julli ga mu biinan ci lu ber wa usikum maa ngi leen di dénku yéen taalibe seex bi tanzimin ngeen màggal sëriñ Babacar wa xaarin ngeen wek sëriñ Babacar wa ikramin ngeen teral sëriñ Babacar li say xii ndax mooy sama sëriñ za gis nga kii may wax axina sama mbokk la fa yaa way kon torox tañeel na li muxtari din fii kontar sëriñ Babacar xasuudin kiy añaane sëriñ Babacar maan na maami ak kiiram mbaaja jëme ci sëriñ Babacar wal xataati fii na ak kiy yàqe jëme ci seen diggante yàlla na yàlla dëgëral kàttanu sëriñ Babacar ali ci moom bi sayyidil awwalina ci darajay sang gaayu jiitu ya wal axirina ak darajay sang gaayu mujj ya wa sallama te mu musal ko minal aadaay ci noon yi biidan wa suudan maa bugaati ajmaina ci barke sayiduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ula damaanul mustafa al adnaanu li xasbigi l mawta ala al imaani tafiifu rabbi sakaraatul mawti anhum min al mawdi duna al fawti ولا يرون في القبور غير ما يسرهم سبحان خالق السماء ولا تمان المصطفى عدنان لني مصطفى جك ورلول مومي دومي عد مومي ستر عدنان جا بيك الموت على الإيمان نتالي بسيخ بيدي مدي جنغم يالله تخفيف ربي سكرات الموت سيدنا سرنا تجاني نه maamam yonent bi nee na ko dinaa woyofal sukkuraatal ndee ci gaa yi seex yi anhum minal mawudi ne dig la waaye dig bu dul dañ la wala yaraw na dunu gis ñoom gaa yi seex yi fil xubuuri ci bàmmeel xayra maa lu dul yasurruhum lu leen di bégloo subhaana xaaliqi sama تامينوغوم دينا لن فغال من جمله لانزابي تي مبولم رب الورى يومي بروم من ديفي المقدر الاسباب ويغفر الله لهم ذنوبا يا جيل نجيغل سيني بكار ويستر العيوب دلنا بالسن أيب والتبعات من غزائن المجيد لا بحسن عتيم يودق الودود من المزايا عدم الحساب وعدم السؤال والعتاب إزلالهم سن كريا في ذل عرس الله يوم القيامة فيا لله جوازهم njëgay yéegee kawaahilal malaayika ci kaw la ñuy ala siraati ca siraat min na tan xéewal xolal ndeysaan asraw moo a gaaw min tarfati aynin ci xef inna zaanaka la moom li kulli barin zitza wa yadxulul jannata xaamil wirdi wa walidin wa zawjatun كرول دي كذلك الأزغار والزرار واستثنيا حفرة يا قاري تجري الدموع وليس الجار مدامعي يسفي لي لفقدي قليفة دياني الله أكبر قد غربت لذاك في بحر الدموع وغيث الغتاني الله أكبر jàll amruka kulla man fawqal basittati kaana xayru kafaani wala góomam yàlla atasarrufu moyor soppax ndiku fil ibaadi ci jaam bi maa yosaa num ko soobee la koy defee fii mulki yi ci nguuram yaa ayosa xalaani aalaytu annal aysa baada firaaqi kadrun li faqdi bëjëtë suudaani wa baqiitu des naa man alaaji mansuur mustawxisan may njaay àllu baada firaaqi gannaaw bi ma tàqali ko jëmu jooju xansaawu xansaa sax duniya yées naa ko fil bukaayi ci jooy wëgëwaani ak doyadi law kaanati duniyaa bu fekkoon aduna bi mahalla iqaamatin bërëbu saxuwaay la la aqaama fiya kon dina fi sax alxaarifu zamdaani seex na tijaani kon du dem wa aqaama fiya kon dina fi sax ndeysaan macha allah sëñ Lamine <laughs> ah macha allah yi fi moom neex na lool de man de daaneel nga ma wax dëgg yàlla <laughs> tubaarkàlla sant nañ bu baax a baax kontaan nañ de waaye dañ lay ñaanal rek suñu borom guddal fan yu baax a baax a baax ah gën a wéral baat bi nag maanaam ba ñuy dégg fañ lay dégg nag ñu maanaam fa ñuy dégg jànkat yu mag yaa mag a mag ñu dégg la fu ko raw barkeb Seydina sallallahu alayhi wa sallam ndax wax dëgg yàlla li ma wax léegi rek ku ñàkk ñaan la da baax lool tay eh, wax deug yalla ah, da nga am worma ma ci doomu adama lolou motax tax ñun ñu japp la nit nag mom bu amé yeg yeg ci doomu adama rek manam koku manam dañ koy japp bu wér a wér té lolou mo nekk ci yow ñu ngi lay ñaan nga gudd fan loolu sey say cër lolou ma sha allah waaw di ñaanal tamit wa kër gi nga xamanteni ni ah, ñoom lañ fekk muy sey mbokk ñu leen ñaan suñu borom guddal seeni fan bu baaxa baax suñu baay bi nga xamanteni ni sa wajur bu bu goor ñu ngi ak mom sank bi ñi ñëw rek ci yoon bi ndeysaan mu jox ñu suñu way bu baaxa baaxa baax ñu koy ñaan suñu borom guddal fanam bu baax daanaka nag Thiès Events moom ah. ni la fi nekkee rek ah kër diine yëpp lay dugg. waaw di siar baax sëñ mam góor si mi nga xamanteni moy borom télé momit diku di diku baax di ku ñaan fu ñu toll nak mu ñuy gëna ñaax di ñuy wax gor lu leen inshallah allah dina baax momit ñu ngi koy ñaan suñu borom yok ko baax a baax ak ñi nga xamanteni moy ñi ñuy top ci émission bi sa su nekk ku melni ni sëñ Ablaye Kane ak ku melni ni Ismaïla Fall ndoy suñ sëñ Souleymane si ak mbollem talibé yi nga xamanteni ñu ñuy top ñu ñëpp manam bu ñu dañuy joom wala duñu matal mm-hmm. kon dañuy ki rek bu ko défé sëñ Lamine manam mm-hmm. temps bi nak dafa xawa gatt gàtt waaye bëgg nañoo am ak yow lu gën a gudd loo xamante ne ndax yow njàng mi ngay jàng ah dafa dafa dëppook njàngu mag waaw ku mel ni ah suñu bàyyi du kenn da maanaam njàng ma mu doon njàng maanaam njàng moomu ba léegi dañ ko war di yëkkati maanaam mbokki taalibe yi di ko dégg ndax loolu am njàngat la ndax li nga fi wax lépp am njàngat la génnul àdduna li nga fi wax nii maanaam loolu ku ci tànk yooyu ku ci jaar rek do do do do do moy barki mam Cheikh Rafal ñu ngi lay ñaanal nak suñu borom guddal sa fan bu baaxa baaxa baax du wara noppalu ah noppaliku woo ah jugaat sol sa teni muy teni seyduna Muhammad ah ko ak sa gaay yu baax yi muy cameraman ah lolit eh, yombul waye nak dañu lu baax mom eh, amul tank ginnaw tank kanam la am ala kulli hal ah di sante yit eh, sama nijaay ci kër gi ñu koy bu baaxa baax di sant Pape Bouya Kayta. sànq daal ma ah da ba gërëm de. ndax may première soppe ba da ko incha allah war bi daal la gërëm. waaw ñu sant ko bu baax ak waa group ba yëpp ñoom Omar Ndiaye ñoom. Mm. Aka ñoom Mara ñëpp ñu ngi di sant baax di leen gërëm. Mm. nuyu xaas Ndiaga Sall sama xarit moom ñu sant ko bu baax gërëm ko. ah di leen ñaanal yàlla yéen it. si mm. télé bi yem nii. Mm-hmm. yàlla na ko weesu. ba ñuy dégg wal fajri. ورجل بسريان زمني وزر خيرك وكل بدني والتقنا سر النصارى واليهود